Sénégal nous appartient. Il n'appartient pas à ceux qui sont au pouvoir. Il n'appartient pas à ceux qui sont dans l'opposition. Il appartient à toutes les filles et à tous les fils de ce pays. C'est pourquoi, d'ailleurs, Doko dit, El Hadji Bon, fan la far. Tantôt il tape sur le ministre ou sur le président, tantôt il accepte quand même le, le mérite du président ou du ministre, tantôt il tape sur l'opposition, tant il dit que tel opposant s'est bien comporté. C'est ça la vérité. Dieu aime la vérité. Qu'on arrête, qu'on cesse d'être trop partisan. Si vous êtes avec l'opposition, quelles que soient les bêtises, comme cette campagne de Wayan internationale, comme cette campagne de Sadako international comme cette campagne de, de, de, de blanchiment international, on dit oui, comment l'opposition Oui, oui, il faut le Il faut, on va pas accepter la dissolution du, parti. Ce parti qui viole la loi doit être dissous. Et mieux, ses leaders emprisonnés. Oui. Qui viole la loi doit être sanctionné. Ils disent qu'ils vont continuer. Je demande solennellement au, ministre de l'Intérieur d'appliquer la loi dans toute sa rigueur pour que nul n'en ignore. que ceux qui sont tentés de financer des activités djihadistes ou pour, pour blanchir, pour voler et venir ici procéder à, les, à des blanchiments, que cela soit châtié sévèrement, sans aucune faiblesse coupable. <laughs> sans aucune faiblesse coupable. suñu réew mi duñu bàyyi kenn kenn mu taxaw di ko jaay mën nga wax loola neex nag parce que sos nañ fi lu rëy a ay milliards et milliards dara du ci dëgg pour impressionner sénégalais yi ñu ne indi firnde yi mën a ko indi assemblée wala doo dem mi et plus grave nga dem ba Casamance te bu ñu ma laalee Casamance moo may défendre bëgg a tas Sénégal kooku taxatee ji di dee dem Casamance ñu défendre ko tey mooy laaj ay milliards ay xaalis yu jóge fan kooku mën na jaay Sénégal fii la taxaw jour bu ñu yóbbu assemblée war a xool projet de loi bi astafurlah euh, rapport commission d' enquête sur les quatre-vingt-quatorze milliards mu ne day def conférence de presse Ziguinchor naan bu ñu ma laalee ay eh, ku ma laal Casamance moo may jàppale yow mu ngi mel yow doo Sénégal yaa ngi doo Sénégal di jaar ñi ñëpp de pat nañ rek ko wax dee waaye Sénégal du dëkk al Albouri njaay dëkk Cheikh Amadou Bamba dëkk El Hadj Malick mais bon Dieu pourquoi Sénégal commencé rek ay ragal xale bu ndaw ñoo bëgg a nopp nit ñi ku wax dee. am ñu ànd ak moom ci opposition parce que ñu ànd nii rek daal non duñ nangu lii diw diw teel néew nee d'accord d'accord ci lan pour loi bi ñu respecté ko waaye xoolal yebu leen kenn ba dégg diw nee na diw nee na war nañu bàyyi ko dañ ko mu lan mu indi xaalis kenn xamul fu xaalis bi jógee loolu yoon du ko may kenn fii ah du moom du affaire même Macky Sall amu ci droit bu ko defoon mu rëcc affaire am la xëy na ministre intérieur boobu yëg ko woon mais kii yëg ko ci am fule di magistrat xam ngeen du bàyyi kenn di ko yab ku xam Antoine Diome du ko yi xooxatal tamit ñun ñu ko gis tribunal liggéey ak moom xam ne du yambar <laughs> ñi wax yëpp dañoo tiit nag képp koo xam ni sàcc nga boo gisee policier da nga koy bañ sàcc suñu da xaritoog policier wala gendarme sàcc yaa nga butti daan na fi jógee na fi jógee na fi jógee <laughs> waaye mais yow bu yegg seegul nii nañ respecté loi bi ñu ne ko jóge fi moom inventé wul benn mot lépp loi bee ko wax li mu teg si wax inventé wu ci yokku ci wàññiwu ci ñu ne ko jóge fi yow li ngay wax da ngay makkee la makkee la ni defal lii tasal parti bi parti boobu bu jubalul dañ koy tas mooy kan waaye yu ma parti boobu mooy kan mais parti boobu mooy kan mais ku tapet sa tapet sa affaire la mais parti boobu mënul tax nit ñi nekk ay tapet parti bi dafa ñëw mu jëfee juddu soo parti PTP moo ko fi nekk junne yoon ba may dem assemblée sama liste man kenn parti ba fu nekkoon mooy ba muy dem assemblée prix forestier la am koo man tegu mu am loolu mu am parce que. saala Sall bokkutoon ci élection yi Karim Wade ñoo ñëpp jokk seen i voix ak waa Casamance di ko jàppale woon muy amul dara la lu fi lu tax lu ñëpp tàppet foo ne day day nekk président ëllëg dañ ko gaaw neexal du dara bu neexee yàlla lan la ñëpp ragal day yeeru ëllëg pour jox leen dara am na yoo xam ne aussi c'est malhonnête c'est c'est c'est calculé nañ ànd ak moom xëy na bu faloo moom xam ne doon naa wax ak moom doon naa ko jàpp ndax mu nommé ma dara du nekk dara ndax nekkul ci dëgg nekkul ci stratégie mustaqima ki ki dox ci maaynu nit ñi ak sàcc la fi nekkee sàcc terrain jaay terrain sàcc xaalis Mercalex Atlas yu bëri ñu ngi fi ñu ngi yore pièce ci attends bu leen ma taxaw wax ah bu leen ma taxaw li ma leen secret daa bëri ci waa ji de dama xam lu bëri ci suuf si suuf si bi jaay ci mu sàcc xaalis bi mu sàcc bi mu bëggoon a sàcc lépp dafa nekk taxaw yii gars yi daal xale bi moom loxoom dafa set loxo bu set fu mu setee mu dem courtier Tahibou Ndiaye bi jàppee Tahibou Ndiaye bu seetee Mansour Faye pour intervenir foo ne moom it dañ ko dara jàpp mu ne mosuma gis Mansour Faye dañu fi nekk dem nañu sëriñ si pour ñu suul wax jooju yëpp lañ seede pour ñu suul wax ah, koo jox réew fen wu fen wu tàng jër waa presse bi leen waa mais fii la ko génne wax leen ko Mansour mu ne Mansour Faye moo ñàkk fayda lu may tàggoo na génne bu dee mas naa toog ak moom ko ñu génne preuve yaa xam ne balancé euh, audio bi mu ne ñu ñu commencé naa li tax ñu génne audio bi léegi fàtte nañ fer la ñuy attaqué Sénégal moo neex bu tàng jër ñu mën a fen wi ñu ne la ñu war a sanctionné yow mi fen nag te dina mooy l'essentiel ak l'accessoire essentiel kay mooy fen bi accessoire mooy audio bi mais nekk nit donc ci wolof laa la laa tourné fin bi donc maa ngi ci financement yi du ñun may kenn nga ootee kenn xamul foo jëlee xaalis bi ci àll bi mën naam ñoroon xaalis bëgg koo indi Sénégal wut occasion boobu pour indi ay milliards am ci seen wàlla yow nga jël ci ko nangu duñ nangu it jihadiste yi dugal fi ay réseau yéemoon nañ ko fi procès amoon na fi atte amoon na fi imaam daw jàppoon nañ ko bàyyi ko bi am na ñeneen ci ñu ñu tëjoon du ñëpp lañ bàyyi woon de du ñëpp lañ bàyyi woon procès imam daw am na ñu doon def entraînement ci camp yi bokku arab li may xam ne ko yéen ñëpp entraînement ñu avoué ko ci biir audience kon nga xam ngeen ñoom dugg nañ Sénégal ku leen may nag ñu indi ay milliards fii dañuy yeewu rek sa waaye ñu wër ju rek ku ndomb rek dañ def Mali loolu it kenn du ko fi nangu ragal ragal ba seytaane yooyu dugg ci réew mi ànd ak seytaane bi fi dekk nii duñ ko nangu kon Antoine Diome li mu war a def la def ministre de l'intérieur mooy joxe récépissé parti mooy joxe autorisation mooy surveiller parti moo yore lépp jëm ci parti kon moo war a parti fi ñu war a yem li ñu war a def ak lu ñu mënul def ministre de l'intérieur bu ko deful defoo sa waru gar